Salam mbok yi ñuy tous euh, ñoo ngi délu si di ci problème bu nga xamné que mi ngi commencé jël ampleur parce que euh, du 21 juillet 2018 à 13h30 euh, dañu vu une vidéo Qui nga été la gratuité de l'eau à Touba une une des causes de la pénurie à Dakar Je pense que ce fait ne que état du Sénégal plus précisément le ministre de l'hydraulique Mansour Faye euh, avec ses services hydrauliques dañu am problème pour jox euh, askanu Dakar ndox mu sel ngir euh, ñu mën ko jëfëndiko buñ layto dëkk bu sel bi di Touba ba ku ñuy wax un certain Momar Jong analyse politique di défendre cette cause di di wax ne que Ndakaaru bu ñaké ndox Touba Mbàkke mo leen ko tek may wax que je pèse bien mes mots dafa parce que limay ni vidéo bi sur la scène TV parce que euh, événement yi fi jaar en na ci ci euh, Aliou bi nga comité initiative de l'eau de Touba démissionné ñuy wax mbokk yi nga xam que Sénégal ak liko ak que li lalu lu la li laalu ci mbir moomu ñëpp xam nañ ko mais dañuy ñaan suñ kilifa yi nga xam ne que ne ñoo yëlif dëkk bu sell bi ñu xam ne Touba du yam ak benn dëkk kum neex ak kum naqari du yem ak benn dëkk kilifa yi laay waxal xam ne ñoo yëlif Touba Touba du yem wala du mas ak benn dëkk ñu xam ne Touba yërmande ko sos yërmande bu fi jeexee parce que Touba nañ waxante li fi ne tàng na amul beneen bërëbu bërëbu liggéeyukaay bu bu ñuy wax yaxantoo fi nekk ba sëriñ fallu di sos marché Ocass yërmande taxoon yërmande jooju bu jeexee mu tàmbalee ci man wa ak keneen ak keneen kon ñu dellu suñu penc ci maam ndax xañtu sëriñ Tuubaa moo ñu indi ci dëkk mu sell bii ndax sëriñ Tuubaa dañoo mënal lu nga xam ne ko suñ bàyyi ñu ko suñ maam lu ñu ko suñ kenn ñu ko kon ba tax na ñoom ñu war a delloo seen xel delloo siwaat seen xalaat ci askan wi nekk biir Tuubaa du du ñuy dagg du ñuy jaam dañoo ñëw ngir jaamu Sëriñ tubaa ngir mu dimbali ñu tey dimbali ñu ëllëg mais yërmande jooju bu fi jeexee bu jeexee ci biir dëkk bi mën naa ne dëkk bi kon mook dëkk yépp yam mais daray àdduna wërta tax wala kenn yi àdduna wërta lalu lalu ci ginnaaw ay bëgg-bëggam ngir xañ taalibe yi yërmande jooju nga xam ne que moo taxoon Sëriñ Tuubaa sanc sanc dëkkam bi ba tax taalibe ñëw di ko xeeñ té mbir mi mi ngi bëgg jël ampleur ay nit nit ñu nga ne kenn xamu leen kenn mësu leena dégg ñu ñëw di add ci ci Touba man damay poser la question ana lan mo leen may fit tay lan mo leen may fit bañu taxaw ci devant ay télévision di wax ne kan dakar bu ñaké ndox tuba tax mais ñu wat ci ginnaaw tuuti euh, Serigne Cheikh Aliou bi nga xam ne mo démissioné barki demb ci ndoxum tuba amon na un projet bu nga xam ne ni dafa amon une batterie de 50 forages à Touba Bago ñu estimé won ko ba ba projet bi ñu tek ko en place ñu dégg barki dem Serigne Moustapha defat Fatma amone un projet pour jox Touba ndox mu nga xam ko ndox mu sel lay doon moo mo koy momal bopam té du ci fay dërëm doon xaar une simple signature ben signature la doon xaar ana lu ko bloqué tay ñu ko waat bëgg ñu andil ben projet bu nga xam que société française bi langu ci ginnaw bi bootu ci ginnaw ngir mëna exploiter

wala muy def un bail pour tout Touba sur 100 ans président Macky Sall euh, astafurlah président euh, Abdoulaye Wade a def que titre foncier mais titre foncier nañ de ci nous ñu pensé wu nous ñu xam lan la Touba bi muy am bi fait Serigne def bail def na bail avant que le Sénégal ait am indépendance en 1960 kon yëf yi nañ ko wat te boy boy ba te nit ñi euh, euh, yëf yi mi ngi bëgg doy war doy war ku nekk di jóge fu nekk di wax mais momor jong ñun xamuñu ko xamuñu kuy ndayam xamuñu kuy bayam xamuñu kuy mamam tay mom muy am audace attaquer la ville sainte de Touba kene kene bu ndakaru ñaké ndox mom la mom xamut bopam li Serigne Touba defal suñ borom ba suñ borom fayeku dekk bi ba teraangee xéewal yi di fi ñew mom na ci mom empêcher ko te ñi war a wax ñi ngi ne pat pat tayral waxuñu mais gis nga lii nii nii nii di yoot nii muy ci projet hydraulique bi nga xam ne que ne moo tax ñuy wax naan que Touba dafa war a fay ndox bis buñ ko aboutiré danañ remettre en cause le titre foncier de la ville sainte de Touba. am na fi ay structure temps yëpp ñi ngi dégg les commerçants du Sénégal di yuuxu di yëkkati si seen loxo. ñooñu lenn doo nga tax dugguñu Touba lenn doo nga tax mi c'est le titre foncier titre foncier boobu dong moo tax dugguñu biir Touba kon léegi an moo lan moo tax ñi war a wax ne patt pattiral comme xanaa kon léegi li sëñ Modou Lo Ngabou doon wax ne que dafa am ñu nekk ci dëkk bi ñu nga xam ne que ne tey lu ñu yëkkati ngir que pour intérêt bi Touba buñ ci amul cinquante cinq pour cent du duñ si àddu mais ñi nga xam ne ñoon làqutu ci ginnaaw di porter ce projet là pour que Touba wu dëm fay ndox pour Touba am ndox mu sell ndox mu qualité pour su njaboot gi dund ci condition yu bien nangu nañ ko mais erreur gi ñu dal ci Ila Touba wuruñu dalaat parce que projet Ila a c'est c'est un projet bien mais xam na ne projet a Touba du projet bu xam ne que ne Touba ko tax a jóg projet la bu xam ne c'est une route transcontinentale bu nga xam ne que ne dafay traverser Touba jàll ci yeneen sieur projet boobu ñun la communauté mouride mënoon nañ ko réaliser suñu bopp réaliser ko suñu bopp ñu ngi ko estimé ak combien de milliards plus de quatre cent milliards nañ dellu si ginnaaw tuuti ñu dem Maroc Maroc wut mi ngi nii nii di dégg li ñuy wax Agadir Marrakech moo sut fuuf ci distance diggante Ndakaaru ak ak te ci montagne la jaar ñu xar ko jaarale ci biir autoroute bi te c'est beaucoup plus moins cher man na nek trois fois moins cher projet Agadir Marrakech mo gënu yomb projet Ila Touba kon Mouride waron ñun la communauté Mouride manon nañ ko gérer suñ bop benen bi moy mat ñun ñu ci limay wax ñu demal rappel bi Serigne Mourou Moustapha difa bayam bu baax ba diko indi bir Touba bobu le problème gënu na gënu na bëri jafé jafé aduna japp ko mu fexe ba indi sëriñ bi Touba bi mu jëlee raay bi njaareem coût bi mu coûté woon murid yi sur le côté financier côté humain moo gënoon a colossal fop gënoon a gënoon a metti Ila Touba actuellement pourquoi amuñu am engagement ak vision ak détermination pour defal ko suñ bopp mais dañu tendre la main te borom xam-xam waxoon na ne benn baaraam joxoñ la meññe juróomi baaraam bu tàllaloo yalwaan la la communauté mouride nous propre décision pour que des projets d'avenir pour que développer cette ville kon vous trop laisser la communauté mouride la Sénégal mais avons dañuy devant imposer eh, la suprématie

ñi nga xam que ne ñi nga wa war xaar pour jox Touba une centrale électrique parce que nañ dellu ñu euh société de télécommunication bi gën a nga ci Sénégal son chiffre d'affaires bi mi réalisé chaque année les 71% onze vient de la ville sainte de Touba ana lu ñu défal ana lan la ñu defal ñu dara soixante onze pour cent de son chiffre d'affaires biir Touba lay jogué ana defal société muy mom muy une société télécom defaluñu dara société électrique bi nga yor électricité Sénégal nombre d'abonnés bi am bir Touba amuko fenn ana lan la defal bir ana la des personnalités mourides jeunes hommes et femmes que nous taxaw laaj li ñu moom suñu àq ak suñu yelleef ci biir Sénégal nit ñi buñ dee wax ñu naan Touba nangam Touba nangam Mbàkke Mbàkke nangam nangam ak nangam dañoo bëgg ñoom ñoo xam ne que démb démb Sénégal metti woon na démb Sénégal meloon na neneen mu bokkut ak nii amul ñoo xam ne bu ko yoonu muru taxawutoon Sénégal du mel nii mu mel tey murid li ñu contribuer sur la situation économique du Sénégal ñun ñëpp xam nañ ko alu tax ñun suñu àq ak suñu yelleef duñ ñu ko jox ba tax fu nit dagge rek ñew bu bëgg dara wala mu bëgg défendre dara ñew di jël touba wala mu jël njaboot ci seigne touba gi di di wax lu ko neex njaboot seigne touba gi duñ moromum kenn ci biir sénégal tuwa du benn du moromu benn dekk ci biir sénégal kumi neex ak kumi naqari loolu loolu moom nga nara faato faato walé mais na ngeen xamné ne non noonu suñ borom noppi ne bu yàgg yi ngeen di def ni yépp suñ borom dañ leen ciy xam dañ leen ji xam te mun leen a fexe fexe fexe fexe ba li ngeen bëgg ngeen am ko Momar Jong dama bëgg nga xam ne que yow ndaw nga ci ndaw nga ci li por combat bi ngay porté bo amé audace dem ba ci sen TV nga ci sen plateau nga fay défendre wala wala ngay yëkëti ay propos yu ñu xam ne que ni kenn xamul lu mu doon kenn nga ndakaru bu ñaké ndox tuubaa tax ñak umple señ tuubaa tax mm, mm, mm, ngay wax li ngay wax yéen xamu seen bopp ndax xam naa ne que ni fii Sénégal gii ñu nekk nii bu sëriñ Touba feeñoon ci beneen dëkk bu dul Sénégal kon Séné kon dëkk bi ñu nekk nii waxatuñ ko waaye nag bukki bu yabee gaynde sa doxin wala kon kilifa yi nga xam ne que ni ñoo yilif dëkk bu sell bii dafa jot ñu taxaw seen responsabilité bàyyiwaat xel leen booleeg taalibe yi nga xam ne que ñoo nekk ci biir dëkk bu sell bii parce que képp ku ci génn sa pencum maam parce kenn amu ci problème suuf ku ci nekk fu pentu mam nga genn ñew ci dëkk bu sel bi parce que ni waxe sama njal benn kàddu serigne touba dafa manal talibé yi lu nga xam ne que seen bàyyi mënalu leen ko seen mam manal leen ko seen lelu manal leen ko ba taxna problème hydraulique bu touba jot na ngir ñu saafara ko une bonne fois pour toutes les moyens nécessaires yim yim laaj ak les moyens techniques yi nga xam ne mom la laaj pour que touba jot jot ndoxum bopam mu nga xam ne ni moo koy gérer bopam moomal ko boppam revenu yi cay génn delluwaat ci biir dëkk bi dafa jot parce que ñun ñi ngi exploité société multinationale yi nga xam ne ñoo nekk biir Sénégal di yëpp siège yi ñu yor biir Touba ak xaalis financier montant financier bi ñuy am recette ci biir Touba kenn xamut nu mu toll ana luñ luñ defal Touba bala ñuy dee rek bu 18 safar dikkee dikkee ñu ñu ñu fopp seen mbaliit yi ak seen yi nga xam ne tekkiwul dara ne dañ koy yóbbu Tuubaa kon mbokk yi nañ dellu soit xel yi bu baax a baax a baax a baax a baax ñu xam ne que nag tant que ñun ñoom fi ak ñu mel ne ñun képp ku ci ñepp sa sa sa gimiñ di wax say waxi bëy wala sa waxi dof da nga xam ne que ne ñi ñi fi nekk dofuñu ñi ngi seen xel ak seen xalaat xam li xew ci réew mi. su fekkee ne dafa am ay nit yu leen di jox xaalis wala ñu leen di am yenn lu ngeen di defandre ci ñoom ba tax ngeen di porte des combats yu yu nga xam ne que ni combat yooyu ngeen di porter xama seen i maam xama seen i niyaay xama fu ngeen nekkoon ba Serigne Touba di liggéeyal suñu borom ba am lii ko suñu borom fayee ci dëkk bi di booba ñooñu kenn xamu leen